بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على من أرسل ولم يرسل إلا رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نيابة عن وصلة إلى ربي مولاي الشيخ أحمد تيجاني الشريف فاطمي رضي الله تعالى عنه رضيت بالله رباه وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيه بكبرتي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بنور كلفة يب دينار سنو خليفة سرين بابك محمد المنصور يا نبي الله باي بكين تبي صلى الله عليه وسلم بلن يحرك فتبارك الله نوي جلسوات بلن نارا يا الله بساك سنيان سيون إن شاء الله ينيرات بدف بريزانتاشن سنو تاكسان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم moo ngi amee sa bokk jot ki ko organisé mooy Toumane Sow ak madame Sow suñu duggee fi dañuy dugg si biir kër gi nga xamante ne fa tabaarakallah fa la yëfi amee fa la yëfi amee ñu dem xool nit ñi seet si ay yenn nit ñu posé leen question ñu xool nan lañ dundee bés bi. ñëw fi bàyyi suñu yitte ñëw ndax bés bi. dañuy ñaan yàlla na jëm ca kanam ñëpp fekke ko nag te lépp yéen ci ci ngeen bokk ndax ba ngeen jàppee ba tey bawu leen bu leen neexoon ngeen bàyyi bu yàgg waaye defoo leen ko da ngeen a jàpp rek yal na leen yàlla jàppale yéen ñëpp may leen gudd fan gu ànd ak wér ngeen yàgg koo teewe yàgg koo fekke ci barke Seydina Muhammad ca kaw ca kanam ci lu baax dama mënta wax nag lool la uuf na ma téye na ma yërëm na ma sàng na ma laa la sutura ni ma téye nag ni la ma téyelee sama rakk yi yëpp bëgg ma ba ma xam ko bëgg ma bëgg sama njaboot yëpp nag ndax sa soxna boo ko bëggee rek bëgg ak njabootam bëgg sama rakk yi nag jooyu ñu yaay jooyu baay képp fu baay di féete doomam moom féete nañu fa sama yaay jee ci ban yàlla na xippi jee àjjana jooyu ñu ko xalaat ñu ko ñoo wax dëgg yàlla lu ñu jaaxle daw ñëw si ci man ñu nangul ma lool nag di sama rakk yi déggal ma lool nag sagal ma lor sutural ma te di ma tiitaroo nag fu ma yam. Lo fa lañuy yam luma len wax lan lañuy def luma len sante it lol lañ may defal bëgguñu dara luma nakari bëgguñu ma bëgguñu ma mar bëggu ma marafle bëgguñu dara dara dara ma jaxlé ko suma febaré duñu am jam, duñu am salam. ñu bëgg ma nak ba mu jix tak ma ci sante yalla baax di sante sama rakk ju góor nak benn bu góor lañu yalla jox muy sama raku. Bah, sama baax bëgg yërëm ma Ibou lu ma nekk mu ngi ci lu ma bëgg su ma ko nee Ibou carte téléphone ma nga ca bëgg ma bay bëgg a dee yërëm ma taxawu ma jàppale ma bëgg ay magam yëpp nag ak i rakkaam jooyu ñu dara moom tamit suñu bàyyi nag yàlla na ko yàlla may gudd fan bu ànd ak wér waaye wallaahi azim bu fi jógoon nit day jooyuñu ko ndax suñu càmmañ lu góor lii day wax dëgg yàlla tax na xalaatuñu dara ndax lu ñu bëgg suba ma mu ngi ci lekkul dara bàyyi ñu lu ñu lu ñu ñu soxla buñ ko nee kar téléphone balaa jant bi soow bu neexee yàlla nañ ci jot ma koy ñaanal yàlla nag mu yokk ba yëg yàlla ja mel ni ci seex ay kër gi nag borom dafa tiir jeeg bu jekkiwul du fi sëy du fi sëy dëgg la Cheikh Seydi Ahmada Tidiane Ahmada Tidiane aywa aywa شيخ سيدي أحمد سيد بابا بكر لحيته في جدواه وصبل سيد بابا كر لحيته في جدواه ويكم صبل سيد بابا كر لحيته في جدواه ويكم صبل سيد بابا بكر دوبانا كنم يا يرجينا جي والله كم صبل سيد بابا soppal sëñ Babacar loxoy ca kaw diine du ay fay ki fi yor cër ah, ak i doogati ak i sañ sañ si diine jee yënguwul kooku mooy sëñ Babacar ku ma soppal sëñ Babacar loxoy ca kaw diine du aca ah, wax leen kuy bañ lii doo jiital xalifa bay si commissaire jiitoo fas daanu xaj naa ca bay mi toppal sëñ Babacar lu xëy ca kër fii ja duwaa Seydul Xalifa Babacar si jël naa ndam la fii ja duwaa Seydul Xalifa Babacar si jël naa ndam la fii ja duwaa wax leen xalifa di bi jant loo bañ bañ muutim la leeral la lii la yàlla may may bim fii di max naa way ku ma soppal sëñ Babacar lu xëy ca kaw Mansour moom mooy jaabil kul ko tubbee alaaji Mansour Mansour ya baax kul ñu ko tubbee alaaji Mansour صم بابكر زي عرفت الورى سرقت وخرب ورى أرى كمثلي فتى المنصر وإلا في سائر الورى إذا سابق الأقوام يوم يوم إلى يكون يكون إماما في الورى والورى والورى والورى والورى محمد منصور دولة جعلنا Mansour moom mooy bàyyi sëñ bay Mansour doo jaja gannaaw maa ngi mbër moo xam ne du ci songante du ci bakkonte ñëy du dox du tabu naw fen soodin soodin soodin wal baayaa diine Madu Mansour doo jaja gannaaw Alaaji Mansour Malick bàyyi sëñ bay Mansour doo jaja gannaaw baayam baayaa diine maaliku loxoy ca kaw ku ma soppal dabbax maaliku loxoy ca kaw booy daje waxtaan léegi ñu ne président mu ngi dugg saalum nga dugg gis ko loolu kay ci barke doom yi nga ko amee kon nag la bëgg ci barke yonent bi koy jaar yàlla yërëm nañu suñu bàyyi Isaaxa Saw nga xam ne mooy waajuru xaaju tumaane mii taxawal guddi gi waaye yal na yàlla yërëm way juróom bu jigéen soxna Mariam Saw suma ma na ko yàlla jéggal soxna ak Xaaji Chérif moom tamit yal na yàlla yërëm ko ak nday anta siis ndax nday nday ayta siis moom tamit yal na ko yàlla yërëm ci barke guddi gi ak Xaaji Anta Mariam Jéey moom tamit ñu ngi ñaan yàlla suñu borom yàlla na ko yàlla yërëm ak xaaji lay géey moom tamit ñu ngi koy ñaanal yàlla ci guddi gi lépp lu ci yow rek yàlla ko yàlla yërëm ak xaaji Cheikh Diallo su ma jëmoo daa mel ni ñu la def dara ñaan suñu papa yi tedd benn ñaan rek boo xam ne si ñoom lay jóge ñoom kilifa yi ñu làmbee leen ko seen wàll ci ci. اللهم صل وسلم وبارك والكريم على سيدنا محمد وعلى اصحاب من يال الانعام وذكرتك صلاه تبع الله بنا محمدان صلى سيدنا وابراهيم خليلا محمد صلى الله عليه وسلم mu delloo ci santaat yàlla. wallaay wallaay. julliwaat ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. di wax ni alhamdulilah. li nga xam ni bés bii tey. nit ñu xiir ci boppam. ñi ñu xiir ci siraatal mustaqim ñi ñu xiir ci li nga xam ne ni moom mooy l'islam ah, donc ñu def lu dul sant Tuubaa li nga xam ne nii moom fàttaliku ay wéjuram ah, def loo xam ne moom la doom di def ndax doom bu fekkente ni bàyyi ko ci àddina mu di la ñaanal mm-hmm. booba yow perte ndax dafa bokk ci kiraama yi nga xam ni nit ki bu fekkente ni bàyyi na ko ginnaaw euh, alhamdulilah yi woote na ko fa fekk dafa am yow woo xam ne boo ko defee boo génnee àddina fa lay yem mm-hmm. am na yoo xam ne daf lay topp ilaa yow mi ji ñi nga fi lim léegi yàlla na yéen yaa ma xare àddina te yàlla topp leen ci barkeb la ilaha illallah def Fatiha def salaatu ala nabi def Falaq ak Naas yàlla may ñëw ñu dugg ci bismillahi rahmaani rahim génn ci alhamdulillahi rabbil alamin allahumma salli wa sallim ala bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmaani rahim maliki yawmi ddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in إياك نعبد وإياك نستعين اللهم صل وسلم وبارك والكريم على سيدنا محمد موعد عسكرك دار الله قدرتك رتك صلاة تبع الله من محمدان موسى نجيا وابراهيم خليلا محمدا صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم ولا اعوذ بالفعل من شر من شر حاسد من شر النفاسات من شر حاسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس امين ملك الناس اله الناس سر الوسواس خاف الناس الرزق يوسوس في صدور الناس يتبع الناس برحمة الله صل وسلم على نبينا محمد امين buko ay ndaw rek seqe man babaka si d'accorduma waaye bu ko ay mag rek seqe tamit d'accorduma mag ña dañuy ànd ak ndaw ñi bu xalaat jotee mag ñi def bu jëf jotee xale yi def ku ma tumaane bu ko yëgalee kilifaay mi ñu ñoo bokk jotaay bi loolu day sant yàlla waaye nag du ku war mu tudd dëkk ñu tudd xaaju tumaane bi nga xam ne tey cër bi cëram la te di seedeel ñi fi daje nag nekkul lii dañoo tëb rek ne nañ ko def man sama buntu ci caaro yi Papa Alioune Guèye mii la ak xel mi la yàlla jox xalaat ko ba nga xam ba nga xam ni nga ko bëggee ñun ñuy soog a ñëw mais léeg-léeg nit dina bëgg a def benn affaire boo dajalee xalaat yu bëri la bu jox sax bu dajalee échec waaye ñu leen seedal lii ci yéene la ko defee du mën-mën du lenn jàmbaar la ko defee yàlla dimbali ko ci kon ñu ngi nuyu suñu yaay yu tedd yi dina jox seen wàccuwaay. yaay yi nag mm, papa na ñu ngi nuyu Mamadi yaa Mamadi ñu koy nuyu am nañ fii sama soppe bopp yaarama moom ñu ngi koy jox wàccuwaay bëgg Serigne Babacar Sy moom sa kàddu ñaanal ay waajuram tumaane ñun ñii lay woo ñu ñu yendu ko defal ko ñaan kon nag bu ñëwee bokk ko ak moom ñu koy sant di ko gërëm di nuyu bu baax suñ ñaari ustaas yi nga xam ne fa tabaaraka ñoo téye Ndakaaru Njaay ustaas Aliou Faye ñu koy ziyaar moom mi war a taxawee guddi gi ak Oustaz Mouhamed Lamine Ndiaye ñëw wéttali ko yooyu nag nag la war a demee waaye ñu ngi suñu soppee suñu xarit Xaaji Moustapha Niang nga xam ne lii ñuy def cërëm la nga xam ne le 12 dafa seenee dajewaat fii si Thiaroye ñaanal suñu wayju suñu baay alxaaji Maguette ñaan ñu ñaan yàlla yàlla nañ ci yàlla yóbbu ak jàmm waaye di nuyu Serigne bi Gueye léegi dama ko tumaane di présenté xaaji Mortala dafa xaw niroo xaaji Mansour na xaw ma lu bokk waay waay waay jërëjëf jërëjëf lu bokk niroo da ngaa toog ma koy jàng ma ne kii dana niroo nag xaaji Mansour Mansour moom miin nañ ko waaye yow xëy na suñu gisante moo bëriwul waaye di nuyu suñu baay yu yi di leen jox seen wàccuwaay di ñaan yàlla yàlla yàlla a dëgëral seen taxawaay ndax lii moom ku ko am sa njaboot bu di la yàlla waaye di nuyu xaaji Samb bi nga xam ne fa tabaarakallah moom te dimbali na tumaane sonalu ko ci dara ci wàllu matériel yi te nee naa ko bi ñuy jégg tali bi di jëw la ñuy dégg rajo yi rajo yi di joxe kon nag waa Thiaroye lu ñuy defati rek nañu xam ne ah a yi panin Sono mu ngi fi site nag nu tudd moom site tudd. double i. ah double i. double i. ah ak double i mi ñëw wettale xaaju si si si jàng yi ñu ngi koy nuyu di ñaan yàlla yàlla na ko yàlla def tele bu ñëpp xam. waye di beral nuyo nak sama khadijatu goor lu mu mën rek dim jigéen ko dimbali tay xaajate maa ne bu bëggoon ka khadijatu boppam xëy xeyna xëy mbir mi du safe te baba bu bu ñu tumaane waxee dama nang ko xam nañu def nañ ko nañ ko yóbbu ci biir kër kër lu ñu am ñun góor ñu ñu jël waaye booba tey Xadijatu toogul li 31 décembre nañ ko daan def waye man maa ko ñaan nako day xat suba maag suba mi oustaz ñu wara dem ba jurgal te su ma leen ko ñaanoon ñu bañ mënuma ci dara waaye moom ak Pa Alioune seen xel yu rafet ñoo ne Ibrahima du fi nekk 31 bi kon nañ ko yóbbu 30 kon nag loolu ki la ko defal amoo fayam yàlla na yàlla barkeel lépp kàddu yéene la woon rek ñu ne bu ñu ñëwee mooy suñu première def nañu ñaan yàlla def ko téeméeri at te ñu ko fekkee nii yàlla bu kenn manqué suñu jigéen ñi yàlla dimbali leen soxna jaara moo tamit fa tabaarakallaahu fu ñu ñëwee ci kër gi moo xarijatu fi nekk ولكن أنا أقول فرصة أن أيضا ودائرة الإيمان بلان سار ناتي نيو نيو نيو خامنا خديجة مي دائرة بو نيك نام سار لا نيو بوكو ساك أليت نيو مو نيو دائرة بو تيبيس كي ماسي مو أن نيبي سوات كون ني نيان رك كوني فاتي نان نان نيو بار خامنا لي لي خيل ديغا بك واي دو ماتالي كون ني لا فاتحة صلاة الفاتحة أن ديف كو ادي يونتي بي صلى الله عليه وسلم كوماسي بسم الله الرحمن الرحيم يا لما نيي الحمد لله رب العالمين بسم الله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 إلا لا وجهتي فأنت كريم فالكريم من التجاه لعبتي من خالق البرية منشئ لحرمة سوف يقوم بعبده فاعتزم رب من آل غربتي في هذه الأزمنة مردنا عن علمهم جماعتي at rabbil xalq yow jàmbiloo ca man lu dul nangu tey ñaan soo la leen defar bu leen tàyyi dee leen ñaan fu ngeen toll daa iman te bañ a yokki ndax rabbul bari la عم قدف نقل شل عجاب بسنان نقل موي لك النفلان ترين باي اي ترين قدف لي ورب العرش دو قس غدا بقل نقل موي لك النفلان ترين باي اي ترين قدف لي ورب العرش دو قس غدا dogal ala tabadu makr akim ilahina faaminu makri laahi kooke da ko xamul da ko Cheikh Adam de cinéma wa in antum aqrabtumullah atopleen Muhammad دائم الخير تديم الكلام تدوم وخير بين زين أمامنا الله محمد يا صارت لني ويلنا بعد العروج زمان الأزور نواوي يوما من العصر الكل في العلم زاهي

ginnaaw ba nu sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñaan yàlla moom mi am jàmm moom salaam ak sutura xéwal njëgal yàlla mu ko yàlla boole defal barke Mari bi sallallahu alayhi wa sallam man kat damaa ñëwoon rek pour indi carte bi nga xam ne moo doon invitation sunu bis bi ma ñëw dama ni woon yang xale yaa ngi daw rek jox may carte bi ni ko sa invitation nga joxal ma sa papa xar nga dégee ci buntu tànt rafetul dara man naa tuuti rek te jóg dem ma toog muy gën a neex may toog rek su ma nee ma xool mu desee fii cinq minutes ma gën a neex rek yàlla fay la ki yonent bi nga nit bu amee ci yow cofeel yëkkati bis teg ko ci sa loxo loo ca mën na def boo fàttalikoo keroog bi may mun a def anniversaire dama ne la jëlal nga way ndax man su ma wayee dina neex waaye bu way day gën a neex ndax man damaa jëm acte yu bëri mënatu ko maa ngi nuyu oustaz Aliou Faye mi nga xam ni wax nga dëgg man ak yow ak moom nga defal loolu lépp coow oustaz Mouhamadou Lamine maa ngi lay nuyu nuyu suñu soppe moom Habib mi nga xam moom mooy imaamu gox bii di borom xam-xam di jàmbaar ñu naw ko lool yor daara di jàngale ñaan yàlla yan yàlla dëgëral ko nuyu tumaane ñaanal ko moom it lii mu def am na solo ndax deful ci kaw suuf bu gën a rëy delloo njukkal way juróom bi muy dund loo am jox ko bu génne àdduna ma ñaanam kon mbooloo mos bëri mi amu ci solo li ci am solo rek mooy mi ngeen ko defal daa nga jàngee xuruf bi rek boo jàngoon saa Faatiha mën a ñaan yal yàlla fay la barke yonent nag ki nga xam ne sunu jërbaat la muy may mën a man nag may mën a tax ma ñëw ndax ñoo bokk daayira te bis bi dañ ko dugal ci groupe bi bëri na lool waa daayira baa ngi ne ñu ñaanal leen yàlla yal yàlla sàmm leen si nga nit bu amee bis wax naa ko keroog daayira bi ma ne leen bu la duus jàllee ci sama bis may ñaanal sama baay ku mu neex tey jii mu nga ni Moustapha sama waay ne bu la duus jàllee nag laay xam man samay waay maa ngi ciy invité ñëpp waaw la duus de laay xam samay waay yal na ci yàlla yóbbu maa ngi nuyu sama doom man du Mbaye man maay baayam man nag Demba kii maay baayam nag laa mën a yem maay baayam waxtaan maa koy nuyu bu baax waxtaan Fall waxtaan ku baax la yàlla xam naa ko man li ma gën a neex ci moom mooy waxtaan du mel amul yi njëkk ko te du dikk bu fekkoon ne ni nu koy wax ci daayira man su ma ñëwee li ma njëkk wax mooy Maxtaar moog Sambay mi ñoo sam sama waañ li ma leen di njëkk wax mooy yokk na la de ndax noonu suñ toll ni sonn su bëgg a way maa ngi koy nuyu moog sama waañ loolu la ñu xuloo yal na yàlla fay leen soxna Xadi maa ngi leen nuyu ñaan yàlla yal na yàlla bis bii bu ñu koy defaat déwén ku nekk yokk ba yëpp ci dara ji yonent bi sama. الكفر يا علم هناك آه. الله أعداك في قريب آه. الله سرعى وقد حرم الرداء بجفاك آه. هود ويونس من جملا وجمال يوسف من ضياء سداد سمن بها كتجملا وجمال صلى كبرا فسبحان الذي أساك وما يا ياسين مثلك لم يكن في العالمين وحق من نباك عن وجهك شعاع يا منسر عجد وكل من صفات هناك تجمع الكتاب من معناك والله لو أن البحار مداد والعشب أقلام جعلنا لذاك لم يقدر سقلان يجمع لذة أبدا وما استعنوا إدراكا يا رب سأسعدنا love.

سلينا على سيدنا رب العالمين الحمد لله الذي لم يزل عليا ولم يزل في علاه سليا إذا عملته وجدته مليا وإن عاهدته وجدته وفيا اللهم إنا نحمدك على ما علمت من البيان وألهمت من التبيان كما نحمدك على ما أسبغت من العطاء وأسبلت من الغتاء ونعوذ بك من شرة اللكن وفضول الحسر كما نستكفي بك بافتتان الإطراح المادح وهدك الفاضح والصلاة والسلام على أسرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين نيجي سنتي الله دي رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنة دنيا يعني يلا yal nañu yàlla jéggal suñuy bàkkaar te nangul ñu suñu jaamu yàlla di ñaan yàlla yal yàlla fa jàngoroy biir yéeg yu biti jàngoroy poos yeeg poset yi yal na ko yàlla saafara di nuyu baax alxaaji Tumaane ak soxnaam soxna Xadijatu xadijatun sakkanat yàlla yàlla defal leen jàmm yàlla dooli leen sutura di nuyu Adama saw ah Yaarama Sow Yaarama Guèye ñu koy nuyu di ko ziar tabarakallahu waaye du nuyu bu baax. sangu yu tedd yu baax yi teew yépp fa tabaarakallah Xaj Ibrahim maa ngi lay nuyu bu baax di la ziyaar fa tabaarakallahu yëg na ne baat bi nekku fi waaye def nga sa kéemtalaay kàttan ba mu neex lool yàlla yàlla barkeel di nuyu Mouhamadinil Moustapha borom le douze ñaanal suñu bàyyi. naan bala moom ñoo koy lal. tàmbali ko tëj ko. yal na ko yàlla defalee noonu nu ñu ko bëggee. di nuyu bu baax fa tabaarakallaahu al ustaaz Mouhamadul Habib di ko ziyaar di ko ñaanal yàlla yàlla dolli ko jàmm ak sutura xéewal ci barkiiru tibi di nuyu bu baax ak ustaaz Mouhamadul Amin Ndiaye di ko ziyaar moom it di ko ñaanal yàlla ko jàmm ak sutura ak xéewal nuyu bu baax alxaaji Moodu Mbaay xaj Demba Cissé ñu ngi leen di nuyu maam Alpha xaj Malick Alin sama turandoo. di nga taal. yaay eh, buntu Ibrahima fii Ibrahima ay sunu buntu. kon ba mu ngoog Seydina Alioune jàmbaar la xale bu am yitte la bu am taxawaay yàlla yàlla doon la jàmm Seydina Alioune boo xewlee bis teg ko ci loxoom lépp day lox ndax yitte jee bari yàlla yàlla dafa la jàmm bu baax di nuyu borom rajo yi fa tabarakallahu yàlla yàlla may la ay rajo yu bare bare bare bare ba may la lu sax rajo ay rajo daal Ibrahima feek mu ngi neex nabi yi di leen publicité gàmmukat yi di leen lay gën di law di dem rek boo ci ne neexul waykat yi ñoo lay njëkk a folli ñu naan rajo daaw yi baaxul utal yeneen wala firikat bi ne rajo daaw yi baaxul utal yeneen waaye rajo yi bu normale eh, ñun ñoo lay publicité gën a jëm kanam. moo tax lu mu gën a baax rek bu leen ko xet ndax loolu seen njariñ la comme ni mu doonee suñu njariñ du rek yàlla yàlla doon leen jàmm rajo yi neex maa ngi nuyu sang bi fa tabaarakallaahu toog ci wetu xaaj tumaane ak sunu sang bi riwaay dina war a ñëw waaw mu ni Moustapha mun ngaa yeewee ko ndax dangaa nekk ci ay yitte ndax xam naa lii nga yor am na fa mu war a jëm dana ci événement waaw dëgg la mu sax. Ibrahima. waaw. mais ñoo bëgg rasulillah yi bu nu ma fekkee man Maodo ba vérifié ba gis sama cofeel ñoom dañuy xeeb seen bopp ba mujj gërëm. jazakumullahu xeyran wa bahru istiyaaqi sama géeju cofeel yéexuulu dafay gërëm la lil huyyaami ñeel ña nga xam ne dañoo bëgg jom màkk ba màndi ca moom. moo tax ma ne li baxril hawa نيل يكل ولا يعزى إليه وصول لبحر الهواء نيل جيت جوج نتودي بانيخ قاون أخور فمن كو خمنا را ما ساكونا نيل ويك تي بروفوندور با يكل دنا لوت ولا يعزى إليه وصول تكد نكو يك جيجو بغ جوك مات دفا سوري سوري واي كو yegg da ngay bëgg ba fa ma fa sa mbëggeel yam nga taxaw foofu keneen ñëw romb la keneen ñëw romb la ba ilaa yumi diin waaye kenn mënu koo jeexal kon nag fa naarul hawa tuska min al bu'di wal kula tuqaddu wala tudwa jawaya fa hawa xam nga gila gi lay nuróoleeg safara safara day lakk joxeel gi moo jéggi dayoo tàng ci jëmm ji ba mel lu koy lakk lu tax ngir sori gi mu sori rasulillah nee na dem na sax bay sama resi yi moo doon ne jawaaya sama njàqare bii daal la attiiru lu tëdd kenn mënu koo saafara ndax ndax cof bi mooy bëgg Seydina Muhammad te ala kulli xaal saa bu xëyee moom Maodo mëggeelam ci ñoom Màkka day yokku kon jàngorom du mën a wér toogee di jooy ngir rasulillahi am ku ñëw di ko yeeni mu ne ko ma aasili law xusta ilman lam talum hal aasul misli lam yakul bi xaraami waay waay ndànkul waay e waay jël sa bopp xusuta imaana la matalum bee waxoon ne wali baayin xuuran xisaanan xurradan man daal man daal maa yéemu maa yërëm ki nga xam ne jëndee na jigéenu aljana ya mu jëndee leen jigéen ñi nekk ci àdduna li mu bëgg a wax mooy topp topp topp àdduna bi di mooy yàlla di mooy yàlla topp xale yu jigéen di mooy yàlla ba mu xañ la uurul ay nii ëllëg aljana loolu ko mu dal ku ne perte nga kon boo ca bëggee da ngay jaar fi yàlla jaar yàlla ne wa min ayaatihi an xalaqa lakum min anfusikum li taskunu ilayha yàlla nee na benn yéen góor leen ci soxna yi ngir ngeen di noppaloo foofee moo tax Ibrahima jigéen ñi yàlla da leen a programme ngir ñuy daw ci service góor ñi di leen toppatoo toppatoo googu ñuy toppatoo góor ñun jigéen ñi jaamu yàlla la ci ñoom yàlla da leen ci fay yiw gis nga xar mi xar mi ngay rendi tabaski loolooy jaamu yàlla. moom xar mi waaw. mbindeef bu yàlla bind am nga façon booy jaamoo yàlla kon jigéen ñi góorgóorlu leen ci borom kër yi waaye góor ñi it nañu yërëm soxna yàlla ne wa ja'alna baynakum mawaddatan wa rahma cofee mu ni bu doxee ci diggante ci ci ñaari way dencante sëy ba neex bu jigéen ki bu bëggee jëkkëram lool jëkkër ji yërëm jabaram lool sëy ba neex moo tax rikki waay bul may sa doom ku bëggul bu la a alal jaral jigéen boo ko mayee ku mu bëggul du fa sëy sëy bu baax day xool borom këram di ko jëpp bi amul solo motax sa doom dang koy may ki bëgg ndax boko ko mayee bëgg koku lay tarbiyu koku lay dimbali looloo koy may doom ju bax legi nak yaay yu bari نال آل الحبيب سليل الحدب عثمان خسير العاجمان لله دروك من شيخ يدل على مولاه خولا مولانا عثمان أبا الحبيب سالي للقطب عثمان وإلى عصرك شخصين العادل وفاك مواهبة مئات كم وهبت وفاك مواهبة فرسان أبنا عثمان وأبا الحبيب سالي للقطب عثمان

Church deretu Seydou Hadji malik mo do dugg ci tante bi te ñom li moy seen wàccuwaay si ñun fu ñu leen fekk rek war nañ la jox seen way kon Hadji Bamba ñu lay jox sa way ñan taw na jotay bi nga toge ya ko mom yow rek lañ fi doon wut kon na ko sa saas bismillah dawala sayyiduna Muhammad yàlla nga ko yàlla fulal fulal lako fulal lako bo def ko ci say jabot ba ila yawmi din ci daraja nabi Mustafa wasalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Seydina Ousmane Sonko. Seydina Ousmane Sonko. yàlla ko yàlla may ndam. amiin kon jërëjëf Moussa Fallou Faye waaye waaye jërëjëf yàlla na yàlla barkeel mu mel ni tumaani yéene bii la ci amoon. moo tax boo waxee ma ne ma sa bi sa oustaz boobu kon nag yow tamit ñëwee nga ak yéene lii nga fi def yàlla na ko yàlla barkeel waaye nag mbokk tant bi nag dafa am ay gàllu boppam ndax xaaji Baye Modou Baye mii teew invité ci bis bi fa tabarakallah mu bàyyi lépp soppay Seydina Muhammad yi nekk ci tant bi yëpp sallallahu alayhi leen ñaan yàlla yàlla nañ ko te ay at yu bëri barke yonent bi sallallahu alayhi wa nuyu xaaj tumaani mi tax ñu ñëpp ñu daje fi ñaanal ko bés bi yàlla na ko yàgg a def ay at yu bëri barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa waaye njëkk ñu koy nuyu ñu nuyu dereetu Seydil Xaaji Malick bi fi nekk ñaanal ko yàlla na ko yàlla dolli dëgëral ñaanal la na yan bi diis lool te nga attan sama sëriñ sëriñ Issa Touré moo doon wax ni yan bu oyof baaxul ndax yan bu oyofee dara nekk ci waaye yàlla na yan bi diis lool te yàlla téeñal na ko ba nga àttan ko barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nuyu xaaj Ibrahima Mbengue ak ñi mu seqal table ji ñëpp nuyu suñu frère bi suñu daji ñang borom jamono sànq bi ñuy wax topp yàlla ak jaamu yàlla moom mën naa jaamu yàlla ci ñu fi ne man bu ko neexoon mu jaamu yàlla ci man jox la wallahi fi ñu ne jaamu yàlla ma jël eh, sëriñ yàlla xam na ne dama dama war wallahi dama war a demaat kenn jël barke Cheikh Tidiane waaye góomu cofeel suñu fi yëpp moo koy faj te may ma na suñu jigéen la fi daan ma passé bi jeex way ne ma ngi yeneen bi bëgg def sama invité billahi pasi la doon dem démb ci guddi la ma nañ dem ma ne ko sëñ man damay dem kenn bàyyi ma Dakar te nag saam lu mën a xew nañu mel moo ko def mu wax ñu gàntal ko suñu kàddu moo ñu raw moo tax ah, xam naa du xajal ma xam naa damay fexe ba ne fii daa koy kenn. moom kay man xam nga kenn sama yaay fële na. loolu kay danga naan loolu ñu xam la. danga naan danga naan waa waa Caaroy nanu fexe ba kel neex. ba kel neex kon jeex. kay wa man lii bi ustaazin aluusu bi wirdi cheikh. yaqini yaqinan kulla hawlin bi mawridi kan gën a bëgg Cheikhuna Tijaani wa man li yaqini yaqinan kulla hawlin bi mawridi ومن لي بشيخ عالم ذي معارف طبيب لأدواء الفؤاد مسدد أنا يلا فيا كل طبنا يحيل النحاسين شيخ خالص الذي أنا طالب شيخي يخلب بين الناس بيد فاليد ومن Tidiane Serif wa حقائق معتدي البيد من كل فدفد ومن ليس maa ngi ñaan ku gën a bëgg Cheikh Sidi Ahmed Tidiane nga taxaw rek nga Sayyidina Ahmad ومن بشك في قوارق جمة سرايا وتهدي للمريد فيهتدي وهذا أبو سالم وهو خامس لأجداد شيقي سيدا بعد سيدي حوى شرف الدين حيث الزهراء بنت محمد يا شيخ bokkalak bu ma seetaan Cheikh Tidiane lu foot ma laabal ma bellil ma te àggale ma may fii ci leer dañu daje jannaatu ridwaana yaaraama Seydi Haaji Maalik Si yaaraama Seydi Haaji Maalik Si سيدي أبو بكر

maam xalifatul akbar baaral kaamil mbay góor gi dar dar la lay booram leeru ya xalifa baabal ko di fi jël naa dem la wa inaani xat kun li nga bëgg laay def fii Sénégal sëñ Babacar ay ci barkeb Cheikh Fallil bi waaw waaw xam nga lan li duuf ci nag wi xajandoowul ci cin te boo ko ci na xat-xatal da boole ñett mooy da boole ñett mooy da boole tuur sa ñeex taq sa yére xañ ka ñu ko naroon bëgguma tukur ñeex ba bëgguma takkal sama yére ndax dama ñibbi tabarakallah waaye maa ngi jégalu bu baax yaakaar naa xaj tumaani léegi bëgg na waxoon naa la dinaa ñëw ñëw naa eh, yal na yàlla def sutura sëñ Abdoulaye si ñaan yal na yàlla defal yal na yonent bi yëg ni yaa ngi maa ngi jégalu bu baax a baax asalaamaaleykum wa تتم الصالحات وبعزته تتنزل الخيرات والبركات والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري ala tumaane nañu ko wax leen loqdatam min lisani yafqahu qawli mbokk julli ci assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñu ngi nii kuy dégg sunu kàddu di jël di bi Serigne Bamba ñang nuyu ko ziyaar ka jox ko wàccuwaayam bi nga xam ne moom la ko borom bi subhanahu wa taala jox nuyu ziyaar mboolem sunu kilifa yi nga xam ne ñoo rotoon ci jataay bi te jug yeeweeku ndax guddee ñu ngi leen di nuyu jox leen seen wàccuwaay ñoom tamit jox nuyu ak ziyaar ñi nga xam ne ñoo doon déggal mboolem kuy dégg rajo yi boobu ba tey tekk si loxo xaaj Ibrahima Mbeng mu joteel ko mboolem ku mu àndal nuyu ziar bu baax a baax a baax sama soppe bi sama wëllëre ki nga xam ne dama koy dégg fu ma toll wax dëgg yàlla

wallaay jërëjëf Habib. nuyu ziar Xaaji Tumaane bi nga xam ne moom moo fi dajale nit ñi. ah Xaaji Tumaane ñëwul. ak njabootam yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ziaram masawu leen coono ci taxawal lu mel nii yombul ñu ngi nuyu di ko ziara moo mboolem njaboot gi nga xam ne ñoom la ko àndandoo ci tënk ak gàttal ba nu waxee rek asalaamaaleykum rek doyoon na waaye ak xërte mooy tax yenn saay ñuy jukki ndax mm-hmm. du mën a ñàkk tamit yenn saay ndax tàgge boo gis am na jàppal diw loo gis rek du ñàkk ñoo xam ne naan dañ leen si seet bi moo tax ñuy faral di seet bi ñenn ci ñenn ñi di tudd seeni tur ngir ñu mën a yóbbaale ñi si des kon ñi nga xamne ne tudd ñu yëkkati ay kaddu ndax danoo ñaanoon yàlla daaw ñoo ñaanon yalla lu melni nii waaye daanaka lan ñaanon yalla sa yalla may ñu lu ëpp suñu njort ndax ban kay tàmbali lu ndaw la woon olof nag day wax ne ku yokku rek ya wañu kon ñu ngi sant yalla bu baaxa baax ndax amna na ak yokkute te yàlla dana kat mu ngeen ma ñaane ma may leen na ngeen ma sant ma loolu kon yàlla ñu lay sant bu baax a baax si xéewal gi nga xam ne moom nga nu defal muy xéewal goo xam ne kat dañ ko daan defee du ndaw ñu ne nag dañ bëgg yaatal ba ñëpp bokk ci yiw wi moo xam ci dégg lay doon moo xam ci teewoo lay doon ndax ban ko daan def kat daawul am rajo bu njëkk ñu ko daan def jàng day siir waxtaan lu mën a wax ci lu gàtt daal di yeewee ñaan yeewee bu demee bay toll nii nag ak ñu ngi sant yàlla bu baax a baax wax ne kat su ma juumul daaw doon nan waxtaan ci wàllu laab laab déglu leen doon ci am nu ci doon faram-fàcce waye keroog ci suñu programme Pape Thiam dafa am lu hmm. waxon eh? eh? eh. waxoon kan te moom laa gëm ba tey ndax damay wax bay waja a daaneel di leen Seydi Hadji Malick ci tew euh xanaa ne nag ah li ñu jàngaloon kat mooy da nga ñu waxon ñom iya fuñ téwé dina amatul kàddu yëkkati lépp جيبل كسين بامبا مرالي يكل اللي سونجي وقت وي كنت نو نو لا لي دخات لي لا خامن موي سونو جير اك سونو وريت اك سونو ليب دا كاي جير جوكو تا خامنا ني تام كين دوما سي ميري تا خامنا ني مان ньо мом мо wax sax mom la ni gëna bëgg ka man ma wax ndax amaana kat man na ne man ma gëna a latte dëkk bi wala man ma gëna a kër gi da naka bis bu nekk ma ngi fi xew bu ne ma ngi fi daayira yeeg daayira ma ngi fi ma sha allah ma ngi fi di waxtaan ak ñoom kon minan nan sama waxtaan minan nan sama kàddu Ayo yow mi nga xamne lagi la gisee balan la gisat mu yagg kon bu la si gisee dañuy profité ndax dañuy wax ne bu asaman wacce dañuy profité laal ko bala ndax xamoo kañ lay ñëwaat mooy tax ñoom dina xam fi ñuy teg seen tànk waaye bu boobaa boo ko deful rek ñoom tariqa la gën a gëm da ci diine ñu dem doxal wàllu tariqa moo leen gënal ñu dem di doxal ñi xam ne mooy dañuy sàggane seen lu bëree bëri si seen wàllu diine kon daal bala maa gën a guddal te bëgg naa sëñ bi yaatal lu bëree bëree bëri ah. dañ lay jox incha su ko defee xam naa nga daal di waxtaan ak mbooloo mi bu baax a baax a baax indi njàngale nga xam ne moom la Seydi Hadji Malick indi moom la mag ñu baax ñu jàngale ñu mën kaa xam xam naka la ñuy téye suñu diine xam naka la ñuy téye suñu sari sari su ko defee ah <coughs> sëñ Hadji Malick maa Alpha Sow lii ma mel ne ay kaddu gërëm la wala ma jox ko ma lay Abdou Aziz Niang ah fa tabaarakallaahu ma lay nee na ah, kon nag mbokk yi lii suñu sens la nga tànt dareet maam Seydil Hadji Malick am yitte yu bëri jóge ci xadara ba ñëw ne dinaa leen ñëw wéttali te nii mu ko defee ak ñun noonu la ko defee woon ci jotaay Papaline Gueye bi ndax suñu suñu cër ak ñoom mooy lu ñu soxla woon jóge fi dem ba suñuy aajo di leen ko diis ñu ñuy orienté di ñu ñaanal nag bu ñu mënee am lu mel ni ñu ne ñun njaboot gi ñoo ne mun nañu xarit yéen fu ngeen nekk si mission kon li jaadu mooy ñu ñu tëj ñéegi dugg ci ñaay bi topp guddi gi wala bëccëg gi fu ngeen nekk ñu ñuy wéttal leen kon nag Habib jërëjëf nii ñu nekkee nag sëriñ ñu ngi lay seedal ne nii la ñu nekkee ak sa mag xaaju Pape Moulay Sy moom Moulay Sy Habib ñoom lépp ñoom ñoo ko yor ci wàll lépp waaw lu muy def ñoom la ci wóor kon nag boo ñëwee ma jox la cër bi fa tabaarakallaahu ni rek la kër gi demee le 26 wala le 25 Habib xadara bi waaw xadara bi fii ci terrain Oryx le 6 janvier 26 janvier ñu ngi ciy woo góor ñi jigéen ñi mag ndaw na ñëpp ñëw man mii ñu ko war a diriger ci laa bokk kon nag maa ngi ci ciy invité ñëpp kon bëgg na fi am fa ñu wàccale moom la ñuy wàccalee xadara bi. populaire bu mag bii dañ koy waajale le 26 kon nag ñu joxe remerciement yi ndax lii ku ko def di nga di nga dégg jàppal diw jërëjëf diw ndax tumaane rek mënu ko il faut am ñu ko jàppale bis bi jot nag ñu ne leen jërëjëf ci la kon ñu remercier ñi ñi ñi jàpp ci bis bi kon xaaji Pa Cissé ñu ngi koy sant di ko gërëm moom Sëriñ Babacar Fall ah moom moom moom fa tabaarakallaa ñu koy gërëm bu baax moom tamit alxaaji Siise fa tabaarakallaa tumaane ne mu koy gërëm xaaji ci mu day jaay ci mu day jaay xaaji tumaane ne yow de mu lay sant di gërëm xaaji Maxtaar naa ko sànq avant ñoo moom tamit ñu koy sant ko gërëm ci taxawaay di Ousmane Gueye ñu ngi koy sant bu baax moom nag Toumane ne mu ngi koy sant xaaji Mortala Gueye Toumane ne moom tamit mu ngi koy sant. xaaji Oustaz Habib Gueye fa tabaarakallaahu xaaji Toumane ne mu ngi lay sant sa taxawaay sëriñ Ibrahima Ndir moom tamit Toumane ne mu ngi koy sant bu baax ak njaboot. ak soxna isa Diop mom tamit ñu koy sant bu baax di ko gërëm soxna Jaara Taal ha suñu xarit suñu jigeen ñu koy sant moom nak bu baax japp na ci bis Maguette Sall Maguette Sall kazalika na ko noonu Samb Samb Maguette Samb waaw allah wow ah jàmbaay ji la Papa Alioune Tour moom tamit taxawaayam ci kër gi xaaju ceeb boo soxna xadi may ñoom ñëpp de ñu koy sant di ko gërëm ñun di ñu mënee def lii sëriñ bi ci moom bii la jaar ndax fi jamono toll bu ko neexoon tey lu mu liggéey ne mën naa ko sama bopp waaye moom loo ko waxal mu ne xaar moo Ibrahima Mbengue xaar moo oustaz Habib bi wax naa ko ci programme ko bim naan su ma amee doom Habib laa koy tuddee boobu takkul jabar wallaay waratul kaaw mu ne yàlla su ma njëkkee may doon jikkoon oustaz Habib na li ma defal sama ñaari waajur sama papa li ma dund ak moom bëri waaye fi ma féetee ba keroog ma lay xamal loolu gisuma nit ku ma ko defal yàlla may ko doom jikkoon moo ubbi sama nopp yi di xool ñu ne tëf na Habib ma ne ah ma ne ma ne moom nag wàccee na ak Oustaz Habib ndax ku la tuddee doon bëggul nga dee kon na papa ni jërëjëf sa taxawaay. xaaji Debbo Saabidi moom tamit ñu ngi koy sant di ko gërëm xajja alfa alfa bu baax ah déedéet man moom man moom man moom dugg naa man man dugg naa ci man moom sama mbir amul solo dugg naa ci papa de soxna Awa Ndiaye. déedéet man man dugg naa ci Papa Alioune dugg naa ci Papa Alioune incha allah soxna Awa Ndiaye moom tamit kazaalika ñu ngi di ko gërëm waa koñ bi nag yéen ñëpp tumaan leen amul seen fay mu ngi leen sant di leen gërëm di leen ñaanal yàlla. waa comité Nasrun Minallahi ak wa daira nasru min allah ñom ñep nak deug la fi la yamale mbir mi rek waaye mbir mi xel sax mën nako upp ëpp lu ci mëna am la na ngeen xam ne yéene la kon nag Moulay abdul Aziz ma ngi ñaan wa yeen iya, wa yeen iya, wa caare ñu ngi jox serigne bi mom nak mo xam ñu andi waxtaan. mo ay bes bi fa tabarakallah ma sha allah dila ñaanal yalla ya gudd fan. tay xam dina gis ni lu mu lu mu lay wax ak loo yëg ak loo sentir te nga xamante ne yaay soxna Xadija awa yonent bi chéri Tumaani Sow macha allah nga nekk yaay ju exemplaire ñëpp di si yow loo wax nag. ansimillah ah, mina seytaani rajim gannaaw moo nuyoo ñëpp ziar di kontaan rek ci bés bi comme ni ma la koy waxee woon sant rek wax dëgg yàlla di sant sama sang bi bu baax di wax ne ku ma bëgg rek dama bàyyeek moom waaw kontaan lool ci bés bi maa ngi ñaan képp ku fi ñëw joxe sa dërëm balaa di déwén yàlla nga yokk ba yëg yàlla na doon paasu màkk ci barke ci bi tedd bi sallallahu alayhi salaatu wasalaam nga yokk ba yëg ko kontaan naa lool sama xol bi sedd na buy ba mel ne baaroo galaas année bu jot rek yal na ko yàlla yombalal may ñu xéewal bu ñu ko defee ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sant naa ñëpp gërëm ñëpp ku lim juum di sant samay xarit samay doomi ndey ñoom ñëpp ziyaare naa leen ndax ñoom ñëpp wuyu si nañ ma dëgg yàlla ñoom ñëpp wuyu si nañ ma woote ñu wuyu si la yombul waaye maa leen di sant di leen gërëm kenn ku nekk turam a sant sant naa leen gërëm leen rakk sama rakk ji di ko sant di ko gërëm moom tamit di jàpp ci bés bi lool ak samay rakk yëpp wax dëgg yàlla sant naa leen gërëm leen te di leen ñaanal yàlla yal na yàlla barkeel lépp yokk xéewal gi sutura ak yëpp ci barke nant bi yéen di la sant yow jéem a xoog sant naa la yaa Faat Caam maa ngi leen di sant di leen gërëm ba ngeen jàppee ba léegi bàyyiwu leen ngeen bëgg ma bëgg sama njaboot topp sama njaboot bëgg kër te yàlla suñu borom rek tax yàlla na leen suñu borom fay ngeen bëgg yegg yàlla na suñu borom yóbbu yéen a xam lu ngeen bëgg yàlla na ko suñu borom defal wéral seen baat yéen ñi tagg yonent bi yàlla na suñu borom wéral seen baat yàlla may leen lu seen jot ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi salaatu ah, allah soxna Xadija yàlla barkeel yàlla aar la sàmm la sutural la yow yaa aye tey lii jomb la na soxal rek lañ la fay macha allah tamit ñu demoon rek si soxna Issa di la ñaanal yàlla di sàkku ñaan si yow bu baax a baax incha allah waaye tamit ñu ñëw si doomu ndey soxna Xadi di wax rek yow mi nga xam ne tey sa doomu ndey moo ayee lii yëg si tante bi taalibe sëñ Babacar Si. kontaan kontaan dañoo kontaan ndax te ñun moom ay seex lañ te lu jëm ci seex suñu lépp ngi ci ndax seex. xas na xas na am appartement ci suñu biir xol ba bare dëkk na si ba bare yaa ngi dégg te ñun moom dañuy sant di ko gërëm ndax ñun daf ñu yaatal wax dëgg yàlla dañu yaatal ba ñuy gune ba tey ñu ànd ak jabaram yaa ngi dégg ñu ñëpp nañu ñu ànd doon ay taalibe Cheikh ñun Cheikh dañ ko bëgg ci suñu xol lépp lu mu oote suba ba ngoon ñoo ngi ci Cheikh lu mu oote ba ngoon ñoo ngi ci ndax dañ ko bëgg ci suñu xol kontaan nañ nag si bis bi wax dëgg yàlla suñu xol dafa sedd mënuñoo wax nag wax dëgg yàlla wax moom man nañ ko waaye suñu xol dafa sedd dëgg yàlla waaw kay fa tabarakallah ñu ñëwaat rek suñu jeexalati émission ñu laajte rek suñu yaay ji macha allah di ñëw rek di la wax rek tey yow mii di jullit di taalibe sëñ Babacar radiyallahu taala anhu di jëlaat rek tey loo yëg si bis bi ak loo ñaanal tamit. asalaamaaleykum wa rahmatulah. waaw maa ngi leen di nuyu di leen ziar ah di rafetlu bésu tay bi ndax Toumane sunu frère la dañoo dëkk dëkk bu rafet mu invité ñu mu def lu am solo yal nañ ko yàgg a def si barke yonent bi alayhi salaam euh, yal na yegg yal na ngeen yegg ni yoon. parce que ku nekk doomu jullit lii lay ñaan tant tant ñëpp fekk si la si jàmm ah, yàlla na ngeen ko yàgg def naa Muhammad salaa salaam allah macha allah kontaan bu baax a baax yal na yàlla barkeel waaye tamit bu ñëwaat rek suñu yaay ji doog a macha allah su nga xamante ne ku kii dëkkandoo la te dañ te lislaam nee na dëkkandoo moom macha allah waaye tamit doog a suñu yaay loolu si bis bi ak loo si wax dañu ñaanal. kontaan rek ñu sant yàlla julli si yonent bi man taalibe sëñ Babacar laa waaye tumaane mi dañ koy bàyyeeg yàlla ak sëñ Babacar yàlla na ko yàlla ak sëñ Babacar taawooy boppam nit ku baax nit ku gore tàntam yalla nañu ko fi tànta ay ati ati ati te lepp lu ñu yalla yàlla gën ci ñun yalla bu ñu kenn séddale suñu ginnaaw kontaan nañu ci tànt bi mu tànt yàlla bu mu nekk mu gi jere jëf kontaan nañu jëf merci beaucoup di santa jabaram gi kenn gënu kaa baax yalla na suñu borom ba ni kontaan nañu ci tumane xol yi ñepp sedd na guy xol yi ñepp sedd na ma sha allah lakk barkeem jërëjëf yow masha allah macha allah macha allah di di ñëwaat rek yal na yàlla fay leen yow barkente sallallahu alayhi Wasallam. sallam di ñëwaat rek ki nga xamante ne borom kër gi di la ñëw rek di wax ni tumaani ya ayo tey loo yëg sa sa xol looy ñaanal nit ñi macha allah incha allah ginnaaw ginnaaw ba ma sant yàlla julli ci yonte jul ci yonte bi di sant sama ñaari waaju di sant euh, ñi nga xamante ni ñoo mu fekk si tey di kontaan ci ñoom loolu nag macha allah li ma mën a wax daal te bis bi moom bisu mbégte la ndax li moom yaakaar dafa doon euh, bis bi nga xamante ni bis bu yàlla gën a bëgg la maanaam mënoon nañu suñu xel mënoon na nekk ci leneen ci yu fa caaxaan waaye yàlla mi nga xamante ni bu rëttewul bëgguñu. ba xirnu ci ci diine bi ñu ci sant yàlla. di ñëwaat allah di wax ak Oustaz Al Amine di la wax rek nga wax si wàllu takkusaan bi rek incha allah. wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam macha allah alhamdulilah ah, ah, ñu ngi nuyu ñëpp di leen ziar di baalu xaq di leen ndokkeel ci bis bu tedd bi takkusaan ji takkusaanu yent bi la sallallahu alayhi wa sallam waaye takkusaan la boo xam ne dañ ciy ñaanal say waajur tabaarakallaahu Ah, di ñaanal ki nga xam ni mooy ñaanal ay waajuram yàlla nañ koo teewee ay déwén di jaay Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam bis yi am solo la bis yi dafa jëra di bërile ndax li tax mu jëra bërile mooy tabaarakallahu dañ fi jaamu yàlla jàng ci alquran tagg fi sayyiduna Muhammad sallallahu yooyu nag tabaarakallahu euh, euh, day day day temps yoo xam ne li ñu war yàq suñu temps ci fo ak ci leneen surtout bis tey ak suba tabaarakallaahu nañ ko def ci tàntu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bëggee yàlla bëggee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax déglu ñuy tagg yonent bi rek day day day faj saaf day saafara jàngoro fa fi madhi xayru shifaaun wa mafsaun waaw alaaji Abdou nee na tagg rasulullah nga koy déglu rek waaw wa bi sam'i madhi Mustafa showbi tagg rasulullah wala ñu ko dégg ñu tagg yonent bi day tax sa feebar faju sa aaju faju yàlla nañ ko yàlla defar salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. salaam wa xaw xëy na fi koy yemale rek ba ba yoon incha allah di ñaanal ñëpp jàmm barkende bi sallallahu alayhi Events maa ngi leen di bëgge bu baax a baax di nuyu site bi yàlla na yàlla yokk ko ba ca kaw a kaw waaye di am mbégte mu yaatu ndax ñun amuñu loo ëpp yonent bi sallallahu alayhi wa sunu guddi ak sunu bëccëg yonent bi la ak Maulana Cheikh Sidi Ahmad Tidiane kon bu ñu nit woowee wala mu invité ñu mel ni Haaj Tumaani mii nga xam ni njabootam la ñu jaxasool muy soxna Maymuna ñu ñëw bàkk Cheikh Sidi Ahmad Tidiane yéeg ñun ci suñu bopp ñu kontaan waaye yéeg ni ñiñ ko doon defal bég nañ ñun booba la ñu kontaan ñaan yàlla daal bés bi yàlla nañ ko def ay at yu bëri barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kay ah, fa tabaarakallaa di ñëwaat rek di wax di la wax rek looy ñaanal soxna May. waaw soxna May na xanaa ñaanal ko yàlla defal ko sutura dolli ko dëgëral te balaa déwén ñuy tàntaat mu ànd ak borom këram ñëw nag nga célibataire gi dafa xaw a metti ñëw ñaanal ko balaa déwén incha allahu yàlla may ko borom kër bi mu bëgg te gën ci moom barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa fa tabaarakallaa di la wax rek looy ñaanal xajtumaani ak soxna Xadi Njaay xam nga xaaj tumaani moom moo ñaanal boppam ndax ki tàntal yonent bi ñaanal na boppam sallallahu alayhi wa sallam soxna Khadija nag eh, moom dañ koy ñaanal ñaari yoon ndax man sama yaay Khadi la tudd moo tax boo tuddee Khadi rek dañ koy ñaanal maqaama ak gratis sayyidatuna Khadija amoon yàlla na ko ci yàlla rangal ba mu doyal barki yonent bi sallallahu alayhi wa sallam macha allah kontaan nañ bu baax a baax rek ah xanaa rek di la wax rek nga yëkkatiin ñu benn am daax bu ndaw nga bëggalee ko yonent bi تواسلي ربنا مولاي صل على خير البرايا من التفصيل والجمل سن بابكر سنة ببابك الأعظم المفتوح يدخل كل أتاك فإن لم يدخل يملي yow yaay seydina ahmadil mahmudi shafiana yow yaay fatihil muxlaxil masdudi amilali tabaraka eh, fa tabaraka allah xaaji Modou Mbaye di la ñaane yàlla gudd fan ak wér sutura bu sax dàkk yàlla dafa la saatu daarayni fi dunya wa fi l axira si barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi lay ñaanal yàlla lépp loo bëgg si tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla nga ko am si barkeem ndax yonent bi mën na lu ne ndax suñu damay dégg suñu wayjur Abdou Aziz mbaay moom tamit di ko ñaanal di profité si occasion bi tamit di ko ñaanal yàlla gudd fan ak wér sutura bu sax dàkk si barke bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne képp kuy tagg yeneent bi fa nga koy taggee yaa gën keneen ku dul yow waaw kon nag ki nga xamante ne mooy xaaji Modou mbaay kon nag yaa ñu gën فتبارك الله يوم دي تاغ يونتي بي واي تاميت نون لي نانال بو باخا باخ تاميت خاينا في لا ني يمني سي ايميشن بي با بن ليون ان شاء الله ني ديف ايميشن اكوا دوبل بلس ايفنتس ان شاء الله تعالى ما شاء الله ما شاء الله كونتان نان بي باخا باخ جيرجوف مريد نك وايي نيوم ني ني دوخه تخ ما خامني Euh, yoonu lislaam lépp benn la ndax amul xaj ak seen ni ñuy doxee rafet ñoom ak seenu njaboot ñu yem seen yar seenu njaboot ci diine yar leen ci lislaam yar leen ci bëgg yonente bi salallaahu taala alayhi wa yar leen ci bëgg alaaji malik loolu la ñuy doxee doo fi ñëw mukk gis leen ñuy dox ci safaan heure julli fu mu jotee ñëpp taxaw nañ julli man ñoom bokk nañ ci li ma gën a soññ ci julli kon ñooñu amuñu seen fay li ñu nekk nii lu dëgg ci ñoom la li ñu woote nii lu dëgg ci ñoom la di leen sant nag di leen gërëm di leen ñaanal yàlla na ànd bi yàgg te it sunu borom ñoddi seenu fan loolu lañ leen di ñaanal waaye kontaan nañu lool lool lool ndax bu ñu woote woon safaan tey dinañ rus suñuy bokk dinañ rus waaye lii ñu woote jëmale ko ci yoonu yàlla sant yàlla lañ ciy def ñun ñi leen di fréquenté parce que suñuy bokk xam nañ ni kon ñi ñuy àndal duñu ay caaxaankat ay nitu diine lañ kon nag ñi ngi santaat bu wér di kontaan ci bis bi di ñaan nag ñu di ko feete ay ati ati ati at bi jaaxi na bi Moustapha jërëjëf waaw kàddu bu mujj bi mooy sant Xadi mom nga xamanteni lepp mom la ndax ñoy and depuis xalé ba té ma sha allah dara ñaawul ba ñu dalee ànd ba légui and bi yag na rafet na té lepp ci diiné lañ ko tek man daf may soññaat waxna la ni la buma gëné fonk julli xadi bokku na ci ndax da ngay rus sax bo ñëwé tok ñom ñëpp ñuy julli yow nga tok di xolé da ngay dem ba doto ko sax ti ndax ñom dañ lay soñu kon nag maay kontaan ci ñoom di sant yàlla ci ànd bi may ànd ak ñoom ndax lépp ci diine la tegu alhamdulilah jërëjëf macha allah jërëjëf. waaw kay fa tabarakallah di ñëwaat rek macha allah si Soxna Jaara loo wax si bés bi mi nga xamante ne sa xarit sa soppe Soxna Xadi Njaay ak muy chéri Tumaani Sow loo siy wax ak taksaanu sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. asalaamaaleykum ñu ngi leen di di leen sargal. te di leen sant ndax ñun waa kër Seydina Mohamed lañu amuñu kenn ku dul sang bu tedd bi ah ñuy sant Tumaane nag di sant soxnaam ndax lii mën naa ne la sant yàlla mënul weesu lii dund ba fekke waat ko ndax heure bi daaw ñu ngi ci biir kër gi ren ñu génn ko ci biti ba ku ne xat ci njabootuk Seydina Mohamed yëpp génn soppeem yëpp génn ñu di leen sant di wax tumaane ne ko lépp lu ko sunu borom lépp lum ci def rek yàlla na ko ci sunu borom fulal te sang bi nga xamante ne mooy sunu yaakaar tey ëllëg mu fayal ñu ko ñun mënuñu ko fay ndax tant bu mel nii jaamu yàlla la ku la ko defal moo la bëgg kon nag ñun mënuñu koo fay di sant soxna xari nit ku baax ku jullite ku gëm yàlla ku àttan ñëpp ku njaboote ñëpp maa ngi leen di ñaanal yàlla saa borom teg ci seen njaboot loxo te suturaal leen di leen wax ne duñu rëccu dara ci seen àddina ndax fu ñu toll bu dul tànt bi ñu ngi def lu baax ndax dugub bi sotteeku ci biir kër gi ñu ngi koy bokk ak jaamu yàlla yi ndox mu fiy tuuru ñu ngi koy bokk ak jaamu yàlla yi waxtu julli bu jotee boo ñëwee kër Xadi nga xam ne fii ay jaamu yàlla rek fi dëkk kon nag loolu rek ci sant yàlla la ndax boo fa duggee même bu waxtu julli jotee yow da ngay jug force da ngay julli ndax lan loolu leen borom këram yare loolu la yaree njabootam te jullit julli boo ñëwee fekk ñëw ci kër jullit fekk ñuy julli dangay ngay yar nañu ñun ñëpp defaraat na suñuy jukki ñun ñëpp kon nag ñu ngi sant yàlla di leen sant yéen tamit ndax yéen macha allah kenn du yéen man ci seen soppe laa bokk ci yéen laa bokk man lu ma mën a am rek waa kër Seydi Seydi El Hadji ma ko gënal ndax man dama koo bëgg ci sama xol Mouhamed nag moom aw ma ku dul moom ndax sama caat moom laa ko tuddee di ñaan yàlla xaar yi dund ba am ci moktumaane ci barki yonent bi jërëjëf. kay fa tabaarakallaa noonu lañ noonu lañ koy yemalewaat rek suñu gisaate kenn rek jël ko si barki yonent bi alayhi wa sallam jërë ngeen jëf. صحيحا بغير صحيحا بغير خبصا وشوقا له من رجالي أيا ذا الجلال ويا ويا ظلم أهلي عليك اتكالي بساعة عمر من وعمر وقيل وقال لا لا لا لا تمر الليالي بنفس ومالي فيا غم مالي عن الموت سالي أسلك جهلا أسلك جهلا وأتبع غير سبيل الطلاء لا لا لا لا هذا الجلال وهذا الجمال وهذا المعالي عليك اتكال الموت ريب أي الموت غيب أي الغيب غيب لمن له شيب له في الخزان لا لا لا لا هذا الجلال وهذا الجمال هذا المعالي عليك اتكالي طريقي طويل طريقي طويل وذادي قليل خليل وحمي سقيم سقيم فكيف اختيار لا لا لا لا هذا الجلال وهذا الجمال هذا المعالي عليك اتكال ويا ذا الجلال يا ذا الجلال ويا ذا الجمال ويا ذا الجمال ويا ذا المعالي عليك اتكالي فكن عند زين فكن عند ظني ولا تسلم ولا تسلمني ولا تظلمني ولا تظلمني بسوء انفعالي فأنت الرجال ومنا الدعاء الدعاء ومنك العطاء فاذهب لي سؤالي وأزكى صلاة صلاة على سلسلة على شفيع العصاة وصحب وآل لا لا لا هذا الجلال وهذا الجمال ويا ذا المعالي عليك تكاليف وكن عند ظني ولا تسلم ولا تسلمني ولا تخذلني بسوء الفعال هات الرجال الرجاء ومنا الدعاء ومنك العطاء ابليس سؤالي وألقى صلاة على سلسلة شفيع العصاة وصحب وآلي عليك صلاتي سلام على خمر من نوري نيل ما إلا سلام سلام مودمي أزكى صلاتي وتسليم على خمر من نوري

lim làmboo lépp yal nañ ko yàlla defal di nuyu baax waa kër Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñan ñooy waa kër Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ah ok ñëpp am ngeen fulla de parce que bu amee ñu ko askanee man de fii laa bokk bu dee ñii la ah yéen kon jigéen ñi bokkuñ ci ah na ñëpp bokk ci waa kër Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñun kon nuyu nañ tante bi yëpp waaye nag ñu ngi beral nuyoo. sunu mbokk yu baax yi dañuy nuyoo rek ñaan ndax rafet gu jotaay bi rafet ak kàddu yi liñ jot a fekkee nuyu baax Oustaz Aliou Faye ziyaar ko wàcc ko wàccuwaayam muy boroom xam-xam di boroom yar di borom xorma ndam nekkee woon ak ñun ca daara ja ba léegi daf ko yokk yal yàlla taxaw la yu baax Mouhamadou Lamine Ndiaye waaw ziyaar ko bu baax moo tamit ñaanal ko yàlla xanaa ñëw nga si waa ñu nag si ah, ñoom jaara ñëw nga jërëjëf Mouhamadou Lamine ñu ngi lay nuyu baax di la di la wàcc sa wàccuwaay di la ñaanal yàlla yal na yàlla taxaw la yal na yàlla gën a ubbi dënd bi dolli cee def leer ba njaboot gi la yàlla dénk ngay def ci ñoom leer yàlla bu mu jafe ci yow ak mbooleem ñuy taxaw daara ñëpp jërë ngeen xanaa xamoo ku nekk sa daara ja boo gisee nee ko ñi ko teg ci yoon nag laa ko xam njàngale ni mu mel foo ko gis masaw ko wallaahi buñ toogee ngant moo tax buñ la waxoon li ñuy yëg nga nangu leen seen ngant yeewi leen sëriñ daara yi yal na yàlla taxaw leen nuyu bu baax oustaz Habib waaw di ko oyof di boroom xam-xam di ko am cër nag ndax ko am cër rek mooy joxe cër ko am cër moo koy joxe yal na yàlla yokku la yal na yàlla taxawu la wallaay ñu ngi lay bëgg bu baax di kontaan bokk ak yow jotaay bëgg ñu woon sax nga teg micro ndax yaa ngi ubbi bunt bu ama am solo bëgg ñu woon sax nga bàyyi ndax jàng li يهنگا درسنا الفغر لنيا إن شاء الله تعالى نيو بباخ مولا عبد العزيز نين محضر بي محضر بي نين كو يدنيو تكو واتش واتش وايا تبارك الله للي مدوغ الله يرب يوخم دامنا في مو من خوم في دار دفن لا ابتغانا تبارك الله يلي يلا تخوكم mi mission ya ci kër maamam kër maam Cheikh Seydil Hadji Malick nuyu bu baax yal na yàlla gën a fecc sa làmmiñ yal na yàlla gën a ubbi sa dënn ak imaam la te daara la di jàngale waaw wallaahi moom mission yi mboole boobu jàmbaar la ba pare nag des ak waa des ak waa dëkk bi ci daayira yi moom missionnaire la moom nañ ko ñaanal yàlla loolu moom dina koy wax waaw jàmbaar la wax dëgg yàlla imaam la sëñ daara la xam nga kon ceeb bi yëpp moom moo ko yeyoon ak bi yépp si Habib mii wallahi yeyoon na cëram la waaye moo baax rek yaatal waaw ah, ñu ngi lay sant bu baax na di la ñaanal yàlla di la wax ni daal di wax dëgg yàlla yéen lañ ñëw di leen wéttali rek waaye soxlawul sax kàddu soxlawuñ sax kàddu wax dëgg yàlla yàlla taxaw la ak ñi ko bokkal ñëpp fa tabarakallah loolu rek moo nekkoon kàddu yi ah, mat na sëkk waaw ah, ah, ñun ñoo gën a kontaan ñu ngi nuyu baax Papa Aliou waaw ñu koy nuyu baax kon caaro ñu koy nuyu nuyu borom rajo yi nuyu mbooleem sit yi fi nekk yëpp rek di jàllale message bi يعني نجي في سنة تبارك الله يلا بنيك سن مجي جتاي يلا يلا فك سني آجا يلا يلا فر سني بكا يلا يلا جنيو تنك ني سوف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يلا يلا يوك سني جفر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جتاي جتاي أم صلى الله عليه وسلم ku yàlla baaxee ba nga fekke ko santal yàlla bu baax kon nag ñu ngi dooleel sant yàlla bu baax a baax a baax di wax yàlla na bu mu nekk suñu mujj jotaay ñi nga xam ni ñoo ko taxawee bu déwénee yàlla nañ man lu raw lii yàlla na dàq bi ci côté yëpp nag mbooleen ku fi indi aajo daal yàlla na ko yàlla fekk ku fi am jàngoro yàlla na ko yàlla saafara ndax réew mi Seydina Aliou yori moo fi nekk réew mi fi toll nii ay soxla dong la yooyu rek moo fi nekk lépp nag nañ ko jël ñu wékk ko suñu borom insha allahu taala yéenente jàmm bàyyante xel nawloonte boo ko defee rek tabarakallahu boo ne allahuma rek yàlla yàlla nangul la ndax nit ñi ku leen may jàmm rek am jàmm contre bi tamit day ñëw rek Ibrahima boo yéene nit ñi noo def am jàmm bu Ibrahima sañ-sañ nga yéene ko ko noo def sañ-sañ min ilay ka kamaa tuddiinu tuddaanu waaw ah, balu balu tànk si la waaw macha allah yàgg naa def bu ko defee Ibrahima tey nag dañuy jox sëñ Habib mu ñaan. waaw. wala sëñ Habib. yaa ngi sëñ Habib nga ah, ma ko may sax la muy jaay ñaan. waaw bisimilah. waaw man ak yéen xaw ma lu ngeen waaye la naa ko ñaan sëñ Habib. waaw nañ jox Mouhamadul Amin. jotaay bi bi mu koy yëgee. Ah. di leen wane alifay bu amoon ngànt la muy njaay day taxaw dëgg la njaay amee ngànt la muy oh, alifay taxaw ba mhm. Habib amee ngànt ñoom ñëpp di wut wallaahi moo tax toogaay bi nga rafet na loolu laa si mhm. dama la xool li fay ne moom la moom la njaay def mhm. te tey bu ko neexoon toog kër waaye mu ñëw ànd ñun ba mu commencé ba tey wala yàlla yàlla baax kon Mamadou dafa ñaan si alhamdulilah ak sëñ bi yëpp joxoon defal ñaan ngeen ngeen dugal yéene yi def ko ci ndigalu sëñ alhamdulilah sëriñ bi wa man daa bi di ala yaqini yujab المدينة إذا الفاتحة صلاة الفاتحة آية الكرسي قل هو الله أحد فلق الناس تجيك صلاة الفاتحة قل الله من الشيطان الرجيم أمين الله العظيم الذي لا إله إلا هو أمين صلى الله العظيم الذي لا إله إلا أمين اللهم صل على سيدنا محمد آمين آمين والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو من ذا الذي يشفع عنده إلا من يعلم وسع كرسي وسمع الأرض ولا يؤذى الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله آمين يا رب العالمين الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ بالفلق من شر آمين يا رب الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم آمين آمين يا أبو علي اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولينا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا الشر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك وانت على كل شيء قدير اللهم لك الملك كله واليك يرجع الامر كله علانيته وسره فأهلا أنت أن تحمد وأهلا أنت أن تعبد إنك لست تحمد آمين يا رب اللهم لا مانع لما ممكن بما أعطيت ولا معطي لما منعت برحمتك يا رحمة اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا كربا الا نفسته ولا عريانا الا كسوته ولا ضالا الا هديته ولا ميتا الا رحمته ولا حاجه من حوائج إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين وبحق من أحببته وبعثته وأجبت دعوة من به يتشفع وبحق من أحببته وبعثته وأجبت دعوة من به يتشفع اجعلنا من كل دين وجد والطف بنا مجد ثم الصلاة على النبي وعلي خير الخلائق شافع ومشفع إن الله وملائكته يصلوا على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحانك سبحانك سبحانك يا الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام في الدنيا وسلام في الآخرة وسلام في الآخرة وسلام في الظاهرة وسلام في الباطنة وسلام في أحوالنا وأقدارنا وجميع حاجاتنا برحمتك يا رب والحمد لله أولا وآخرا والحمد لله رب العالمين آمين يا الله بدأ ولد Oh, my God.